nos intérêts crypto personnels pour mettre le Sénégal en avant et je pense que ñun ñi bokk APR jàngat boobu lañ. ci war a yow les alliés. jàngat boobu au niveau de l'APR ah, aussi il y a des noms qui man li ma gis mooy que ne waa euh, Benno wàccoo nañu ak ñun. Mhm. vraiment ànd bi ñu ànd ak ñun comme ni parti bi voilà ni ay par coalition tudde woon seen bopp ànd nawle ànd nawle la ñu ànd ak ñun. te gis naa ne sa acte góor dëgg la ñu def acte patriote dëgg la ñu def les alliés mooy les alliés donc ñooñu laa mën a décerner aujourd'hui une mention exceptionnelle bu ma amoon médaille d'or sa dama leen koy takkal mais l'APR c'est là où j'attire l'attention de mon parti mm -hmm. qui est l'Alliance pour la République que war nañu nañu def lépp jaayante ba alliés yi bañ ñu gën a mhm. gore mhm. c'est ça le défi parce que quelles que soient les ambitions des uns et des autres président ku mun di désigner je pense que ne parti alliance pour la moo war a njëkk a taxaw woo nekk ne ñun on est unis solidaire et nangu rangé wu jàppale kooku noonu loolu moo ñu war leneen lu ñu def nag vraiment dina nekk loo xam ne en tout cas les alliés mënoon nañu am attitude boobu te amuñu ko. Mhm. donc ñoom bu ñu ñëwee tey ne kilifa gi koo mun di tànn euh, euh, d'accord nañu ak moom rawatina nag moom njaboot ji nga xam ne moo ko gën a jege ñun tey attitude boobu ñun dañoo waroon sa def deux fois la mention pour wax wonal won ko ne ko président. boo gëmee tànn kenn sax on est prêt à l'accompagner. mais aussi président nekkul euh, le seul responsable de cette situation dans la mesure où APR amul numéro 2. amul kenn koo xam ne ku commencé woon na jug on voit que après président dalay xaw a écarté euh, numéro deux bi ñu a xamal moo nekkoon Alioune Badara Cissé à un moment donné euh, ça s'est mal passé après am ay kilifa yu commencé di génn du lot Mimi Touré par exemple euh, Amadou Ba Aly Ngouille Ndiaye Omar Youm Matar Cissé mais à chaque fois à un moment donné gis benn rupture donc président il s'est toujours arrangé ba de sorte que moom rek moom la ñuy gis tey jii nii si à sept mois de la présidentielle on a un nom Euh, boo xam ne mooy remplacer Macky Sall est-ce que aussi du du sa responsabilité. non mënuma ko jàppee noonu parce que xam nga boo yoree état. vraiment da ngay nekk ci niveau d'information boo xam ne. aussi il a appris de Wade parce que Wade c'est numéro deux. c'est ça benn problème la woon. mu ngi noonu donc la ñu ne. le président <laughs> defe naa ñi koy xelal wala staff bi mu am ñu ko ñuy waxtaan ci mbirum politique. Mhm. vraiment sut na su ma suma ma idée sut na su may avis. tuuti naa lool pour mën a même dugg dans ce cercle là ndax jàpp naa ne ay borom xam-xam lay waxtaanal ci question boobu mais li ab am solo mooy que ne tey yàlla suturaal na ko ba élection yi mu mos a participer Sénégal yëpp yàlla de ko may ndam mm-hmm. ñun peut-être la may su ma mais élection yi ci majorité benn yoon. waaw mais ñoo gagné ci na bu dee jiitu 50 pour cent xam nga élection moom bu tableau bi génnee dañu naan kii a jiitu ñoo jiitu. mais deuxième tour dafay arrangé en 2024. waaw mais de toute façon si on doit avoir. est-ce que c'est intelligent d'avoir plusieurs candidats. man xaw xam nga man. du ma ma du ma du ma spécialiste si côté yooyu noonu xaw man li gën mais man li ma jàpp mooy ma Mamadou Ngom ya s'engagera derrière au côté du candidat choisi par le chef de l'État man je suis. et vous vous vous qu'on appelle euh, les euh, les parents du président. Mhm. maanaam ñi nga xam ne ñoom la bokkal Fatick. Mhm. Euh, qu'est-ce que vous pensez de ce de ce départ. non c'est pas parce qu'on est de Fatick qu'on va se dire que ñun ñun aussi parce que tey lim nga fi ay tour yu dul jeex maanaam tey APR ñàkk. ku ñu gëm a jël rek jàpp naa ne war nga mën a nekk suñu candidat. vous vous sentirez pas lésé. non non non parce que xam nga lu tax ma wax la ko ñi nga tudd nii yëpp ay kilifa lañ yoo xam ne tey xam nañu état yàgg nañu ci liggéey am nañu xam-xam et dinañu am la appareil parce que du appareil bu ñuy créer appareil bu fi nekk. ba mhm. pare la donc il suffit juste d' être un bon manager pour pouvoir s'en sortir et loolu moo tax ma ne la tey bu ñu defee confiance au chef de l' état nous allons tous gagner. mais tey bu fekkee ne ku ne jàpp nga ne yow yaa am la solution nous allons tous perdre bu boobaa ñu assumer ko parce que tey ku ne ci ñun mun nga poser germe bii tax ñu perte mais aujourd'hui man boo gisee may ñafe ba tey ce n'est plus des questions de position ah ni de questions d'intérêt mm man je suis un fonctionnaire de l'État ouais. vous comprenez donc am na yoo xam ne nekkatuñ ci niveau yooyu mais bu ñuy toog du ñu toog di naan ñun de yàlla suturaal nañu wala lii wala lële mais tey c'est le Sénégal qui est en jeu le monde moo toll foo xam ne li ngay expliquer xëy na ñu bëri mun nañ ko bañ a comprendre tey mais bu subaa xëy na yàlla dina leeral bopp yi xel yi ba nit ñi xam peut-être li nga doon wax lan la. Mm-hmm. moo tax tey bu ñuy rey suñu bopp pour que ñu mun a gérer cet état dans la paix ñi nga xam ne ñoom la fi yàlla teg ñu mun leen ko nangul te jàppale leen. loolu ku ko deful rek jàpp naa ne yaa ngi semer germe bi nga xam ne mun na njëkkee sa si si yow wala mu njëkkee si sa njaboot mhm. donc booy lijjanti rek ak quel que soit parce que nguur li mooy faral di wax alalu suñu borom la doomu aadama bu doon joxe nguur kenn nguur du am sax parce que ku ne day dem jëli ko et mhm. boobaa doo ko ah, jëli